a mën a massifier parti bi jógaat la njiitu réew Macky euh, ci Walf euh, Quotidien lii Quotidien lii Quotidien yéen kaay tamit nataaloon njiitu réew Macky ne euh, mbirub politique gi ci réew mi nees ji faaw rek mu dagg bopp ci ñenn ñi nga xam ne ay parandoom lañ 24 heures 24 heures yéen kaay bu Sénégal li ñu mën a jàpp mooy ne faaw rek am ñenn ñoo xamante ne nii dinañu wàññi seen rëy rëy tuuti bu ko defee ñu mën a yembal lépp loolee njiitu réew Macky Sall mooy sàkkuteefam. source A source A moom dafa mu xëy fësal mooy lu jëm nag ci euh, dàq li gi ñu ruumanaat ci élection locale yi ñu ngi koy waxtaanee di ko càmbar ci commission politique bu euh, dialogue national bi décision bi nag ñu ngi koy xaarandigum tey jilee si euh, ngoon. Sud Quotidien tey si bëccëg plutôt Sud Quotidien nag xëy wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci occupation terrain politique bi ci réew ba Sénégal dafa mel ni Sonko moom fi mu toll nii la mu bëgg mooy fexe fexe ba opposition bi ñëpp jox ko bopp. Dakar Times Dakar Times moom a xëy fësal réunion bi nga xamante ne nii commission politique dialogue national mu ngi koy amal ngir rek xool nan la ñuy dàqeewaatee élection locale yi ak lu ci mën a am fi mu toll date bi gën a leer mooy euh, ni kii 2022. critique critique yéen kaay nag addu ci mbiru euh, mbirub euh, ñetteelu mandat bu njiitu réew Macky Sall ma ñuy ruumanaat opposition bi nag bës na ko kànnaar njiitu réew Macky Sall fi mu toll nii acculé nañu ko euh, bépp boor du fenêtre du buntu ndax teg nañ ci ab condition. réew mi réew mi ne moom condition yi ñu ca teg opposition bi du lenn lu mooy mu dàq procureur ak. ki nga xam ne moom moo di doyen des juges su fekkente ne euh, bëggul rek ñu euh, lottal ko ci euh, li des ci mandaawam gi leen ñaareelu mandat gi waaye tamit bëgg lu jëm ci wàllu ñetteelu mandat mu njiitu réew Macky mu taxaw ci kanamu àdduna bi yëpp ñëpp di ko seetaan mu ne bëgguma am ñetteelu mandat lu jëm ci parrainage bi loi bi ko tënk mu daal di koy niilal des na yi tamit ci daal di dakkal li nga xam ne moo di statut non électeur conseil constitutionnel invalidé nag yenn dossier candidature yi nga xam ne nii fësal nañ ko affaire petro nag ñu baral ko ba ñëpp xam fu mu les échos yéenekaay yi ne lu jëm ci ndajeek émissaire maanaam yóbbal yi nga xam ne njiitu euh, yóbbal yi nga xam ne xalifa général des mourides yóbbante na ko ngir rek ñu waxtaanee ko waa FRN nag ñoom taxaw nañu ngir rek listé la nga xam ne moom la ñuy sàkku Serigne Mountakha euh, di wéyal ba tey di ànd ak euh, dal di rek sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di langue politique yi ñu rek jiital seenu pa xel Vox Populi Vox Populi ne wàllu médiation bu jóge ca Touba jiite réew mi wala sax kilifa Euh, kilifa diine ku ci mel ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sàkku na ci njiitu réew Macky Sall ak Ousmane Sonko ñu euh, jiital seenub xel dem na sax bay xam ne ñoom ñaar ñëpp samay doom lañu waaye képp koo xamante ni lama la sant def nga ko dinaa taxaw ci àdduna bi yëpp dëggal la nga yëkkati ci kàddu waaye boo defee safaan way tamit dana jël ay kàddu wax ko loolee nag ki lay di sëriñ Bass Poroxaan moo ko yëkkati ab kàddu gannaaw bi ko euh, kii di sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké yónnee ci waxtaan gi le quotidien le quotidien yi tamit fësal euh, nataalu euh, sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké tension bi dox ci diggante pouvoir ak opposition moom xalif général di Mouride def na ci ab xutba direct news direct moom xëy fësal nag tong-tong gi ñu nemmeeku ci wàllu suuf syndicat des impôts et domaines yi nag jamono ji parcelles yi nekk ci ndakaaru yëpp ñoo ci toog fanweeri parcelle la ñu nemmeeku ci diwaanu ñoom ñoo jeexal suuf sa nekk ci almadi yëpp euh, journal bi ne bu ñu demee sax bay weddi li ma wax nañ jàpp ne rek lu toll ci juróom-ñaari milliards juróom-ñaari millions la parcelle bu nekk di jar bu ñu ko xay euh, juróom fukki euh, millions la suuf su nekk di jar waaye bu ñu ko xaymaa ci koppar ñaari milliards ak téeméeri millions la mbir ma yëpp nekk ab xayma ci suuf sa nga xam ne jël nañ ko Mame Boye Diao nag directeur des impôts fi mu toll nii ñu ngi koy woo ngir mu indi ay leeral ci mbir mi journal bi ne lii bu wooyee sénégalais yi den dema dem ba du ñu am sax parcelle euh, ci rek capitale bu ndakaaru l'évidence l'évidence yéen yi nag ñoo wax ci activité euh, politique yi nga xamante ni APR ñu ngi koy rek daal di sumb euh, révolte futanke yi futanke yi nag jamono ji dañoo mer loolu ci ndoddi ba Ngom li tax nag ñu ngi ko fësal ci journal l'évidence yéen kaay le mandat le mandat moom xëy fësal wàllu wérgu yaram ak tuber tuberculose yi nga xam ne nii tey la ñuy màggal bés bi njàggal a ne euh, mu ngi raam ci ay law goo xamante ne nii kenn mënu koo tudd te jamono ji wopp gi coronavirus la ñu gën a mën a teg bët ka yeneen di doomu jàngoro le témoin sax naan dama koy dëggal lu toll ci ñaanti ñeenti téeméer ak ñaar ko ci ay doomi aadama faatu nañ ci ati 2020 yi muy xam le ne nag tuberculose la muy faat moo ëpp fuufa li nga xam ne moo di wopp gekk coronavirus enquête yi kaay yi nag waxtaane mbirup euh, ay euh, procès yu mel ni ay procès terroriste wala attaque lu ci mën a am mooy procès yi nga xamante ni day yóbbu gafa bu bëri bëri dem ba sax ba ci tuddu euh, attaque bu Grand Bassam ak yeneen yu Ouagadougou. Libération Libération moom xëy fësal jëye ja nga xam ne am na ca localité bu yaboo yaboo ca diwaanu Mbour. Ami fay ab ndaw la bu toll ci fukki at ak juróom-ñett la ñu fekk ñu daal di koy pandal ba mu daal di ñàkk bakkanam ci garab moom sax mu ngi doon nekk ab classe ab élève. bu classe première te diwaanu Thiadiaye euh, faatoom askan ba fay yeewoo gendarmerie nag ubbi na ab enquête ngir mën a leeral lan moo fàtte kooku li di Ami Faye las yéenekaay yi nag jox kàddu ki nga xam ne moom moo di Mariama Sarr ji jëriñ gu ñu dénk wàllu fonction publique euh, ki at ci 2019 ak léegi ngir rek def ko ci wàllu njàng beeg njàngale mi moom Mariama Sarr jàppale jot nañ ko traité diirub ñetti at saw awru seen ni lii ay naxe mbaay la le soleil le soleil di koy dëggal ne Mariama Sarr jël na lu toll ci euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn milliards ci suñuy koppar dékase ko ci euh, diiru ba ñetti at ngir rek euh, fexe ba fay rappelu ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi stade yéeni kaay nag fësal match bi nga xam ne ni moo nar ci diggante Sénégal ak Congo naam amul enjeu waaye Aliou Cissé mën na caa xool lekk nees def ba mën a xam stratégie yu war a biral rek éliminatoire Coupe d'Afrique sunu lamb. lañ koy jeexaleek affiche yi nga xamante ne nii euh, moom euh, Gaston Mbengue mu ngi koy biral ñu nemmeeku ci ay nataal ku ci mel ni bala gay 2 euh, B52 Sa Thiès Moussa Ndoye Forza loolee nag di affiche yu nga xamante ne nii fësal nañ ko affiche yu 4 avril yi nag ñu nemmeeku ne kile di Lac 2 Messène la Modou Lo Ama Baldé lancement choc royal bi Luc Nicolaï nag choisir na Sen TV ngir. rek amal fa euh, jàkkaarloo bi ni ki juróom benn fan ci weeru avril gi ma euh, dëgmal lii daal di buur li nga xam ne moom moo di euh, xibaaru suba si ak xëti yéenekaay di la sant di la gërëm soxna sa Diakhaté mbokk yi kon ci foofu lee ci lañu yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Adama Ndiaye mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba jëlaat kaddu gi waat ko soxna Bisu Thiam Daaf su ko defee mu wéeg yéen li des seen émission bi di Douceur matinale